waaw salaamaaleykum donc maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp euh, di nuyu tout la jeunesse africaine comme nag ñun ay doomu lébu lañ ci dëkku ndox la ñuy juddoo il faut que benn moment ñu gën a sensibiliser sensibiliser la jeunesse africaine surtout nag sénégalais yi parce que damay gis ni temps yi dafa am benn phénomène bu xew xale yëpp ñu ngi jéem a dugg ci gaal gi pour dem te ñi di. wax ni leen kaa leen dugg ci gaal gi dem li leen di wax mooy tey ji Europe corona bi rey na màgget yi ay màgget a fa gënoon bari ñooñu dañu soxla jeunesse te ñi leen di def loolu dañ leen di nax rek parce que boo ñëwee ni nit ki jox ma cinq cent mille francs ki lay laaj cinq cent mille francs pour yóbbu la ci gaal gi sa dee la lay jaay parce que doo yegg nga faatu ci géej gi yow nga enrichir ko moom te tey jii ñun exemple war nañ ko jël ci entre nous suñu voisin yi parce que man maam góor man gisaguma benn pël gisaguma benn pël bu nekk fii à Dakar di chemin mu benn pël Fuuta bu jël gaal gi di dem ñoo ngi fii di daan seen doole pourquoi pas tey yow cinq cent mille francs bi nga xam ne yaa ngi koy jël pour jox ko nit mu lay jaay sa dee nga jël ko exploité ko liggéey am fii dara soo gisee ma jël exemple ci pël Fuuta ba sax ci occasion bi ñoom tamit di leen ñaax parce que euh, ñu bëri dañuy laxatu ci ay élections pour taal ay dëkk te ñëpp xam nañ ni Guinée ak Guinée ay jàmbaar ñoo fa dëkk ay liggéeykat ñoo fa dëkk. élection am na le président konde a gagné parce que moom la constitution bi wax moom la euh, nu mu tudd euh, ñi nga xam ni ñoo yor affaire élection yi moom la ñu d'accord ni moom gagné na naka selu féliciter ànd ak moom liggéey la jeunesse africaine ak guinéen yëpp ànd jàppale ko mu liggéey benn mandat juróomi at yàggul ñu booloo doon benn bokk ndey ak baay jàppale konde mu liggéey jeexal après selu bu mënee ñëw mu ñëw mais mënuñu nekk chaque jour ci xeex ak xuloo te loolu ñi koy def ñëpp mooy ay nit yoo xam ne seen i intérêt personnel moo leen pousse ci ñuy jàppale benn opposant wala ñuy jàppale kenn pour ñu taal dëkk bi loolu bu ko benn africain nangu mooy profité encore une fois ci sama xaritu guinéen yi nga xam ne tey jii seetlu lañ àndal nañu féliciter le président Condé dem topp si ginnaaw jàppale ko bu cinq yi matee bu seetlu mënee ñëw mu ñëw mooy nuyu nag suma xarit Ousmane Yara parce que c'est jeune africain boo xam ni mu ngi tourner partout en Afrique di dox jàmm li ñuy ñaan daal mooy Afrique yàlla def fi jàmm def fi salaam xale yi conscient xam ni mën nañ toog fii en Afrique am fi li ñu bëgg wasalaam merci.